di leen euh, jaajëfal bu baax euh, ci ñëw bi ngeen ñëw tey ndax euh, tey dafa tombeeg le 4 janvier ñu koy célébrer journée Braille waaye 4 janvier boobu dafa tombe itam ak anniversaire u Louis Braille Louis Braille mu ngi juddu le 4 janvier 1809 moom mi nga xamante ni ko en 1900 en 1839 moom ci boppam moom moo créé inventé écriture Braille bi historique gu Braille nag buñ koy wax. lépp ma ngi tàmbalee ci li moom mu ko sosoon ci 1839 waaye jamono dafa dem ba ci 1972 1972 boobu dafa amoon benn congrès bu nga xamante ni ko congrès boobu dañ fa doon dajale maanaam ñiy jàngale ñiy jàngal ñi nga xam ni dañu am ay way laago lañu ci ay ay silmaxa lañu congrès boobu en 1972 yàlla def UNAS Union nationale des aveugles du Sénégal moom demoon ca congrès boobu. ba mu demee ca congrès boobu nag euh, li ci topp mooy 1974 ministre bi fi nekkoon ministre des affaires sociales ñu koy wax monsieur Coumba Ndoffène Diouf moom ci boppam mu amoon benn euh, signé signé lu mu signé woon ak ku ñuy wax Jaan Kenmoor nga xam ni ñoom dañu signé woon benn convention de contrat bu jëm ci jéem a xool baraay bi nan lañ koy jéem a dugale ci Sénégal pour ñu jàng ko léegi nag loolu moo waral 74 74 boobu. ñu am ku ñuy wax euh, Wenselde benn jigéen formatrice moom moo ñëwoon Sénégal bi mu ñëwee Sénégal doon formé di ñëw Sénégal doon formé euh, jàng ñi nga xam ne amoon nañu bac di jàngale enseignant bachelier yi ndaw soosu bi mu ñëwee fi formatrice li ci Braille moom moo fi formé 30 bachelier sénégalais bi mu leen formé ci Braille loolu nag moo commencé nag maanaam ubbi buntu UNAS parce que bañ leen formé pour ñu jàngale Braille 1982 ci la INAS ubbi ay buntam ñu commencé nag di fi jàngale braille loolu moom laa mën a dikk ci historique gu braille bi léegi nag bu ñu jógee ci istori gu braille bi maanaam fan la jóge ba nan lañ ko dugalee senegal braille bi matériel bi li ci nekk mooy lu ci ëpp ci matériel bi bitim réew lay jóge bu ñu jëlee tablette yi léegi poinçon yi sax daan na jóge bitim réew mais léegi commencé nañu ndax. suñu menuisier fii am nañu xarañte di defar ay points yu nga xam ni mën nañ koy jàpp maanaam li ñuy wax di tropicaliser waaye bu dee tablette yi moom nga xam ni faaw nga am tablette ak papier bi kooku moom bitim réew rek lay mën a jóge loolu moo waral xëy na yenn matériels yi euh, di fi xaw a raar. waaye loolu itam terewul gouvernement bi mu ngi ciy def lu mu mën ndax bu dee INEFJA bii ñu ne. ministère de l'éducation nationale moo jël en charge matériel didactique bi yëpp di ko gérer nu mu ko war a gérer dafa fekk ni nag xëy na lu ñuy jënd tey muy kaye mën nga dugg ci kaar dem biir dëkk ba jënd ko ba lay midi nga dellu si waaye bu dee tablette bi boo ko commandé tey faaw nga xaar ay fan pour wax ni daal gouvernement bi ma ngi ciy def ay jéego yu mag a mag a mag a mag ci matériel didactique boobu léegi nag ah, comme dañuy wax ni toujours lépp loo am tey rek da ngay jéem a xool mu yokku loolu moo waral euh, son excellence le chef de l'État depuis ca conseil des ministres ba jëloon décision réhabilité ak moderniser réhabilité ak moderniser moo waral mu tàmbalee tabax bâtiment bële te deuxième phase mooy extension bi ku yokk ay élèves nag di nga yokk itam matériel bi te loolu itam yàlla xam na que ni gouvernement bi muy ministre de l'éducation bi nga xamante ni que ñëw na fii le 12 novembre bi passé moom ci boppam wax na ci te léegi léegi rek maa ngi wax secrétaire bi naan ko daaj ma ngi ñuy laaj expression de besoin parce que ñoom saa yu ne au niveau du cabinet ñoo ngi ñuy laaj wax leen li ngeen soxla pour ñu def commande bi pour mu ñëw loolu itam wax dëgg yàlla ah dañ koy rafetlu dañ koy rafetlu ndax euh, man jàpp naa ni bi mu fi ñëwee ba léegi euh, muy euh, présidence de la république du ministère de l' éducation nationale bàyyiwuñu benn yoon institut bi kon matériel didactique boobu ñoom ñoo ngi ciy jéem a def du ñu mën léegi nag défi yi fi nekk itam. moom mooy jéem a xool ah braille bi ba tey xam nga braille bi comme ni ñu koy waxee looy jël la di ko capp poinçon bi di ko càpp ci kayit bi kayit bu xaw a tal lay doon ñu koy wax papier bristol ci loolu la xale yi di làmbe di liir loolu taktil la taktil la léegi nag ñëpp xam nañ ni ñoo ngi ci ère numérique ère numérique moom mooy xarala yu bees yi nga xamante ni ko tey euh, foofu la àdduna bi toll. foofu àdduna bi toll nag itam ñun bu dee INEFJA ñoo ngi ciy def lu ñu mën ndaxte am nañ fi partenaire bu nga xam ne bii bu dee ci mbirum informatique adapté maanaam xale yi boo demoon tey bibliothèque da nga fa fekk ñaa xam ni ñoo ngi utiliser ordinateur bi defal nañ leen ci formation ñuy jaajëfal itam suñu partenaire boobu STM microélectronique bu nga xam ne ñoom ñoo ñëwoon liggéey si ak ñun former fi ay jàngalekatu INEFJA bi ñu formé ay jàngalekatu INEFJA bi bëgg-bëgg bi moom moo doon jàngalekat yooyu après mën di ko wéyali fii ci école bi pour di ci former xale yi ndax xale yi fi nekk ñenn ñu ci ëpp bu ñu amee bag dañuy dem extérieur ay France ak yooyu te xam nga bu ñu demee France moom kenn mënul dem foofu naan étudiant nga ci étude supérieure ba pare naan man xarala yu bees yi duma ko jëfandikoo loolu moo tax ñu leen ciy commencé di tàggat pour ñoom ñu mën ko miin. am na lu ci saafaraw bu baax a baax xam nga ni lépp lépp lépp lépp saafaraw na. nit du ko wax ndax euh, dañ lenn matul lenn lenn matul mais li ñu mën a wax mooy boo ko jëlee ci ay jamono yu wees ak fii ñu tollu tey nii gouvernement bi def na ci ay jéego yu ama am am am am am solo parce que muy ministre de l'éducation ba ci ministre de l'économie numérique monsieur ba Diattara bi mu ko fi nekkee daaw léegi la nekk sport mais bi mu nekkee ministre de l'économie numérique moom ci boppam moom réhabilité na entièrement salle informatique bi ba pare équipé ko yaakaar naa bi muy indi équipement yi bis boobu xaw ma ndax ñëngoon la mais presse bi ñu bari nekkoon nañ fi te yooyu yëpp itam ay taxawaay li nga xam ni gouvernement bi ma ngi koy dox di ko jëmale ci école bi lu nga xamante ni ko ñëpp seede nañu ni jafe-jafe amoon bu njëkk tey si tey nii jafe-jafe yooyu moom wax dëgg yàlla teggiku na bu baax a baax a baax lu mat nag amul fenn mais li ñu xam mooy am na ay jéego yu am solo yu nga xam ni gouvernement baa ngi ci taxaw te am nañu jort bu rafet si ni kanam la jëm dans beaucoup d'académies du Sénégal il y a des écoles inclusives et ces écoles inclusives prennent en charge les enfants déficients visuels. Au sein de l'INEFJA, nous travaillons en partenariat avec un projet belge, SHC, et qui travaille dans quatre académies du Sénégal. Ziguinchor, Kaolack, Saint-Louis et Thiès, pour ne citer que ce projet. au niveau du ministère de l'éducation à la direction de l'enseignement élémentaire aussi avec le projet SAICV e, ils ont des écoles inclusives au niveau de Kaolack avec l'école Serigne Alioune Cissé de Kaolack au niveau de l'académie de Louga avec l'école régionale Louga 1 et même dans le sud aussi avec le projet Faire l'école qui travaille avec la coopération l'agence de coopération italienne euh, au niveau du ministère de l'éducation Et ce projet Faire École aussi est en train de faire un travail euh, remarquable avec l'éducation inclusive. Donc pour vous dire que maintenant, le braille est connu et pratiqué dans beaucoup de régions du Sénégal. Les défis à relever, c'est que, vous savez, comme euh, toute pratique, toute activité peut être confrontée à de petits problèmes. Euh, parlant du braille, on peut relever que la spécificité, je ne dirais pas difficulté, mais la spécificité qui s'apparenterait à une difficulté peut-être, est liée au fait que le matériel fondamental ne se vend pas au Sénégal. Le matériel se vend à l'étranger, en France, en Belgique. Donc, quand vous prenez le cas des tablettes, Quand vous prenez le cas des poinçons, qu'on arrive maintenant à tropicaliser, hein, parce que même avec les poinçons maintenant, nous, arri nous arrivons à faire des poinçons avec les menuisiers ici au Sénégal. Mais concernant la tablette, ça ne se vend qu'à l'étranger. Euh, pour le papier braille, euh, le papier braille aussi, on a tropicalisé parce qu'on essaie de prendre le papier Bristol, euh, qu'on essaie de, de, de, de, transformer avec euh, la tablette pour travailler. Donc, c'est un peu lié à ça. euh, beaucoup de matériel inhérent à l'enseignement et à la pratique du braille se vend à l'étranger. Ça peut-être c'est des spécificités ou difficultés. Mais nous remercions l'État sénégalais parce que euh, le ministère de l'Éducation prend entièrement en charge tout ce matériel-là en ce qui ici au niveau de l'INEFJA. Donc nous ne pouvons que remercier l'État sénégalais, mais aussi euh, toujours attirer l'attention sur le fait qu'il faut toujours aussi améliorer parce que quand c'est bien c'est bien mais il faut toujours aussi maintenir euh, ce cap et aller au-delà et les défis aujourd'hui parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure le braille est une écriture mode d'écriture c'est pas une langue mode d'écriture en relief que un malvoyante essaie de lire au toucher ça c'est le tactile Maintenant, les défis aujourd'hui, c'est essayer d'aller vers l'informatisation même de ce braille la Le fait de pousser les aveugles, les enfants malvoyants à utiliser l'ordinateur, donc parce que aussi nous sommes dans un monde à l'ère du numérique. Et cette ère du numérique-là aussi euh, ne doit pas nous échapper. C'est pourquoi, euh, parlant de ces défis-là, nous, nous devons maintenant mettre l'accent sur ça, Et c'est la raison pour laquelle euh, l'INEFJA a commencé à travailler avec un partenaire, STM Foundation, donc euh, euh, ONG qui travaille dans le domaine de l'informatique adaptée euh, pour les malvoyants. Nous avons fait des séances de formation avec cette ONG-là, séances de formation au cours de laquelle des enseignants de l'INEFJA ont été formés et ces enseignants formés sont en train de redupliquer cette formation-là aux apprenants de l'INEFJA. Ça, c'est pour être à l'ère du numérique. Aller maintenant du tactile vers la digitalisation. Il y a une évolution parce que, comme je vous l'ai dit, la seule spécificité, c'est que le matériel se vend à l'étranger. Au moment où je vous parle, nous attendons, nous attendons des colis en cube arithmétique tablette qui doit venir de la France dans dix jours mais il revendique ça mais le matériel parvient aussi à bon port le matériel arrive à bon port maintenant il y a que la tablette n'est pas ce matériel-là n'est pas ce cahier que l'on veut acheter à la ville aujourd'hui hic et nunc et aller dans les librairies et l'acheter on fait des commandes Et vous savez qu'entre le, euh, euh, le, temps de, la commande, ça prend du temps. On peut faire la commande le premier et, et attendre le colis le ou bien le 15. Non, c'est-à-dire c'est déjà, c'est déjà enclenché. C'est déjà enclenché. Par ça, c'est de l'informatique adaptée. C'est de l'informatique adaptée. Euh, quand vous visitez par exemple la salle production Braille, SPB, vous voyez là-bas que les agents sont là et sont en train de travailler avec ces ordinateurs. Mais ce qu'on veut, nous voulons aussi que nos élèves aussi s'adaptent à cette technologie parce que après le baccalauréat, la majeure partie d'entre eux sont euh, poursuivent leurs études en France et là-bas, vous savez que euh, forcément ils vont taquiner euh, l'ordinateur, l'informatique. Donc c'est pourquoi nous, nous, nous commençons maintenant à les initier dans cette euh, technologie-là. Par rapport au traité de Marrakech, euh, nous pouvons dire que pratiquement euh, Euh, la signature et à l'étape finale. La signature du traité de Marrakech est à l'étape finale. Le Sénégal avait ratifié le traité de Marrakech. Et c'est quoi le traité de Marrakech? Le traité de Marrakech permet à ces acteurs qui travaillent dans le domaine euh, de la malvoyance d'avoir l'autorisation de transcrire les ouvrages des auteurs en braille. Parce que vous savez, avec les droits d'auteur, on ne peut pas avoir euh, la liberté euh, de transcrire l'ouvrage de, de M. X ou M. Y sans pour autant avoir son autorisation. La ratification de ce traité nous dispense de cette autorisation. Maintenant, vous savez que nous avons des élèves qui font les études au niveau des collèges et lycées et qui ont besoin aussi de lire les œuvres intégrales. Et cela a poussé les autorités à ratifier ce traité de Marrakech. Mais vous savez, la ratification et la signature, c'est des étapes. Et le 7 juin 2022, nous avons euh, organisé un atelier euh, à l'hôtel Radisson où Madame la conseillère spéciale du chef de l'État euh, pour les personnes handicapées nous a dit que maintenant le dossier est à l'étape finale. Le dossier se trouve table du président de la République, son, son Excellence Macky Sall, qui ne va à signer ça. donc euh, je me dis que sous peu de temps ce sera vraiment un mauvais souvenir parce que aussi il faut le reconnaître le président de la République fait énormément d'efforts pour l'institut vous avez constaté de visu le bâtiment qu'il a construit à, à construire et il compte enclencher avec la deuxième phase de classe une salle informatique et une autre salle foyer pour les élèves il y a aussi une grande salle de réunion ça c'est pour prévoir l'extension du point de vue nombre. Mais l'augmentation des salles est corrélée par l'extension des dortoirs, parce que nous sommes un internant Quand on a plus de salles de classe, c'est parce qu'on veut avoir un nombre d'élèves important. Et ce nombre d'élèves important reçus dans les salles doivent avoir aussi ou crècher. C'est pourquoi la deuxième phase de l'Institut va concerner l'extension des dortoirs. des chambres seront encore construites pour permettre à l'Institut d'agrandir euh, et vraiment euh, élargir son, son, son, son nombre d'internats. On est à 160 pensionnaires, mais si on, on, peut, on, peut, on, peut, on, peut, on aller au-delà de 200, c'est mieux. Parce que la demande, elle est Chaque année qu'on organise les tests de recrutement, euh, les élèves viennent de partout de Kolda, Ziguinchor, Matam, etc. etc. Et, et vraiment, l'idéal serait euh, d'enrôler le maximum d'élèves possible.